yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal na ma yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na ma jàngal na ma attey julli feet yi mooy julli korite ak tabaski yonent bi wax na ma laa sawma fi yawmayni al fitri wal adha ñaari bëccëg dey kenn du ci woor ñaari bis kenn du ci woor moy bisëb kore ak bisub tabaski loolu mooy sunna mooy bisu korite kenn warta woor bisu tabaski kenn waru ko woor waaye seen ñaar ñoom ñaar seen atte mooy bisu korite boo xëyee dangay ngay ndékki bisu tabaski boo xëyee da ngay jàpp mel ne ku woor ba nga dem ci jullikaay bi ba ñëwaat bu ñu reyee sa tabaski nga am loo ci jël ci tabaski bi daal koy doge waaye yonent bi jàngal nañu ne ibnu omar ne kaana yalbasu ahsana siyaabihi fil iidayni yonente alayhi salaatu wasalaam moom day ñaari feet yi mooy koriteek tabaski yére ya gën a taaru ca yamu amoon yooyu lay sol tekkiwul ne da ngaa war a jëndi lu bees boo ko amee baax na soo ko mënee baax na soo ko amul xoolal yére yi nga gën a bëgg yi nga gën a yi nga gën a fonk ñu dëppoo colu lislaam yére lislaam nga defar ko ba mu baax su julli gi jotee nga sol ko génn ànd sa njaboot ngeen dem ca jullikaay ba mbokk jullit yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ne moom day daraan sol yére yu gën a rafet ci ay yéreem dem julli ji yow mi jullit yonent bi nekk sa royukaay loolu soo ko déggee war ngaa yëg ne kon day man dama war a roy yonent bi alayhi salaatu ci julli jee yu set yére yu rafet ci jullikaay ba waaye yonent bi jàngale ne kàbbar yi ñuy def ca yoon ba ba ba ñu yegg ci jullikaay bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi allahu akbar wa ajallu allahu akbar kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na li ñu war wax ca julli korite te mooy kabaar yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar wa ajal allahu akbar wala nga allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd riwaaya allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah akbar allahu akbar walillahi alhamd yow yàlla yaay aji màgg ci yow doŋ yaay ku màgg yow dong la jaamu amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yow yàlla yaay aji màgg yàlla yaay aji màgg yow dong lañ war a sant kabar yooyu bëgg nañ booy dox jëm jullikaay ba nga takkook moom ci sa làmmiñ di ko wax fa ba nga yegg ca jullikaay ba nga jëm bokk nañ ba tey sooy génn di dem ci jullikaay ba nga génn di dox moo gën nga génn di war an taxruja ila al iid maashiyan wa an taakula shay'an qabla an taxruja ila sola mbokk yi bokk na ci sunna yonent bi alayhi salaatu booy julli ji jëm ca jullikaay ba nga dox ak say tekkiwul ne waroo dugg oto wala war fas wala aw warwaay waaye dañu ne la gën mooy bu fekkee ne jullikaay bi jege na la nga dox ak say waaye bëgg nañ nga lekk an taakula shay'an qabla an taxruja nga lekk dara balaa ngay génn bu dee julli korite nen na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana sol ci julli feet benn burdu boo xam ne bu xonq la manto boo xam ne dafa xonq mu ko daan teg ci kawam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gis ngeen teggi ni lislaam gis ngeen njàngale ni lislaam gis ngeen yaru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen na mu jàngal jullit ñi ci feet mbokk yi yeneen bi alayhi salaatu day nee na bisu julli feet nañu fexe ba ñu dugal mbégte ci xolu miskin yeeg ñi ñàkk nañu fexe ba izhaaru surur fil ayaad min shaairi diin nañu feeñal diine ca bisu julli gi nañu feeñal màndargay diine loolu mooy nañu sol yërey lislaam nañu taaru taaru lislaam nañu taaral bis ci mbirum lislaam kon bis bi du bi ñuy taaral ci ay caaxaan tëgg po ak ay ak yu kenn xamul sàngaraak ay fo musique ak loolu dafa xaraam budul julli sax dafa xaraam rawatina ak julli feet islaam yonent bi daal li mu jàngale ibnu xajar nee na izhaaru surur fil ayaadi min sa'airi diin feeñal mbégte feeñal mbirum diine takk rajo yi kàbbar ci kaw ba tey ñëpp xam ne jullit yee aye loolu day dafa bokk ci mbirum diine mbokk yi ci yàlla ñu fexe ba jullit ñëpp kontaan idxaalu surur alal muslimi kabiran kaana aw sariiran moo xam xale la moo xam mag ñu fexe ba mu bég ci bisu julli bi bu kenn ànd ak naqar bu kenn wax luy merloo nit bu kenn wax loo xamante ne day yëkkati dënn yi loolu bokk na ci njàngale nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la jàngale kon feet bi mooy laysal iid bi lubsil jadid wa innama al iid liman amalu ala taati rabbi feet du sol yére bu set du sol sol yére bu rafet dañ ko cee sopp waaye feet mooy nga jëf ci feet bi loo xam ne dangay am tiyaaba da nga ci jaamu yàlla mbokk yi ci yàlla lu góorgóorlu ñoo ngi nekk ci jeexitalu weeru koor ñu war a nekk ay jullit ñuy jaamu yàlla topp njàngalenu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ndax yàlla faynu ndax bu dee jaamunu yàlla suñu deewee dañuy réccu rek ak ku nu mën a doon bu nu toppul njàngale nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu faatoo dañuy am jafe-jafe adduna ak alaxira araam na ci jullit mu génn bi su julli mu ngi taf tabarruj mu ngi sol yére yu bon yére yu ñaaw yére yoo xam ne du yére lislaam araam na ab jullit mu sol ko waxuma la lenn nag mu ko yóbbu ci jullukaay ba wala mu koy yóbbu ci jullit ña araam na araam na ci ab jullit muy sos am po ci bisub julli korite wala bisub julli tabaski mbokk jullit yi njàngale nu yonent baa ngoog sallallahu alayhi wa jullit ñi jël leen ko moytu leen seytaane moytu leen ak ay mbokkam balaa ñu leen a yàqal seen jaamu yàlla yëg leen ne bis bi bisu feer la lislaam def ko fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko fonk moo tax mu ne nañu fexe ñu def lu rafet lépp lu rafet dàquñu aada yu rafet laa xaraja fi zalik bal huwa min mahasinil aadaat dàquñu jullit mu def aada bu rafet moo xam dafa maye alal moo xam dafa saraxe moo xam dafa jokki mbokk dàquñu ko ndax ci aada yi rafet la bokk dàquñu nga dugal mbégte ci xolu jullit moo xam ki ngay dugal mbégte ci xolam mag la wala xale la loolu mbir la moo xam ne chariatul islaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko yoonal te moo ko jàngale kon mbir yaa ngoog nu lu sopp nañ ñuy ndokkeelante di wax taqabbal allahu minna wa minkum yàlla na nu yàlla nangul nangul leen loolu yonent bi alayhi salaatu yoonal na ko ci julli korite suñu dajee ñuy waxante loolu taqabbal allahu minna wa minkum yàlla na nu yàlla nangul nangul leen maa ngi leen koy wax yàlla nañu yàlla nangul nangul leen nañ yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla ñu yàlla may nu fekke ne gën i déwén fekk dañoo yokk dara wàññeekuwul ci mun dara du wàññeeku rek lu dul suñuy bàkkaar ak sunuy jàngoro yàlla na fekk loolu dong mooy wàññeeku ci ñun bu ñuy dajawaat waxtu wi déwén ci waxtu wi yal na yàlla sàmm mag ñeeg ndaw ñi yal na yàlla barkeel dund yi yal nañu yàlla booleeg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljanna firdaws ci keppaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam jazakumullahu xeyran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu